yéeme li nga xam ne nii moo am Kaolack depuis tey ci suba ay électeurs yoo xam ne nii dañoo bindu nekk ay primo votant ñeneen ñi defoon ay changement lieu de vote maanaam ñoo xam ne nii dañ daan voté ci yeneen gox ñu décidé parce que Kaolack lañu résidé léegi nii dañoo bëgg bindu fii Kaolack pour mën a participer ci élection locale yi donc tey bi nga xam ne nii moo nekkoon dernier jour avant élection bi ay Kaolackois yu bëri yee woon dem fële ca préfecture pour waaye bañ demee nag malheureusement comme lañ leen di def ba ba affaire yi mate mairie bi chaque fois bu ñu demee rek ñu jël seen récépissé dugg ci biir génn nañu carte ñëw ñëwaat nañ feeg ñett fan. donc mu nekkoon que ne tey moo nekkoon dernier délai bi nga xam ne moom la électeurs yi mënoon a retirer seen carte pour mën a participer ci élection te loolu dañ ci ñëw dañuy dellu tuuti ci ginnaaw premier jour campagne maanaam le huit bi ñuy ubbi suñu campagne électorale suñu candidat Maodo Malick Lo dafa defoon déclaration. ci biir déclaration boobu la mu doon artu mu doon artu ñi nga xam ne nii ñooy autorité administrative yi moo xam muy gouverneur moo xam muy préfet ak sous préfet yi nekk ci département yëpp doon leen xamal juste que ni Kaolackois seen wàll boobu ci liñ bind plus de 3800 nouveaux inscrits yoon jox leen seen droit pour ñu mën a participer autorité administrative yi dañoo décidé woon retenir seen ay carte bi léelu weesoo ñun ñu defoon ay investigation yu am solo investigation yi li ñu woon carte yi nga xam ne nii waa DAF defaroon nañ ko effectivement acheminé nañ ko fii ci Kaolack waaye bañ demee ba ci préfecture li ñu génn ci carte matul woon sànq Kaolack waaye seen bopp ngoon bu nekk ak suba su nekk ñu doon dem ci préfecture la pour mën a retirer seen ay carte électeur waaye chaque fois ci préfecture dañ leen fay dàqee parce que nee nañ carte élection alors ñu am nañ ay information yu leer yuy firndeel ne carte yi jóge na Dakar mu ngi fii diggante gouvernance ak préfecture mel ni ki donc autorité administrative yooyu kenn ku ci nekk ci ñoom dañoo jël seen ay matuwaay pour priver sénégalais yi li ngeen xam ne nii c'est le droit constitutionnel pour ñu mën a participer ci élection yi donc xale yi tey dem na bi ñu fa coowee ndoor nag préfet ci boppam dafa jël benn act boo xam ne acte bu extrêmement grave la mooy dafa au police empêcher nit ñi ñu accéder ci biir préfecture profité waale ci pour dàq képp koo xam ne nii tey da ngaa waroon a ñëw pour mën a jot ci carte yi donc bu fekkee si am na ay carte yu néew yoo xam ne ni mu ngi ci biir préfecture bi tey jii nii police encerclé na ko pour empêcher nit ñu mën a jël seen carte électeur yi li ci ëpp ci carte yi ñëw waaye as tuut gi nga xam ne ñëw na tamit préfet tey ñu ngi dàq na nit ñi pour empêcher nit ñi ñu jot seen carte yi te lii ñun depuis le début de la campagne ñu ngi doon artu préfecture ñu ngi doon artu préfet di artu gouverneur pour ñu fexe ba nga xam ne nii nit ñi danañ jot seen carte donc loolu nag ñun ñu trouvé que ñun ñu jàpp que ni c'est une violation manifeste d'un droit constitutionnel boo xam ne nii Sénégalais bu nekk da nga am droit participer ci élection yi Sénégalais bu nekk da nga am droit ñu jox la sa carte électeur ñuy xamal tamit gouverneur ak préfet que ne lépp loo xam ne nii génnee na tey ñi ci élection yi ce sont les seuls responsables parce que biñ ootee nit ñi pour ñu mën a bindu nit ñi bindu ji nañ biñ ootee nit ñi pour ñu mën a dem retirer seen carte seen carte électeur nit ñi présenté wu nañ ci préfecture pour mën ko retirer donc lépp loo xam ne nii conséquence la ci li xew tey kaw la nañ xam que ni ñoom ñaar dong mooy le gouverneur ak le préfet ñoom ñooy yelloo responsabilité ñuy xamal tamit ni daa euh, problème bi am na ci Sénégal njaay gépp naam waaye ni mu amee fii kaw Kaolack amul benn gox boo xam ne amee na ko fa sur plus de cent cartes électeurs yoo xam ne ni tey jii Kaolackois yi ak Kaolackois yi waroon nañ ko détenir pour mën suba ñu participer ci élection yi daanaka centaine de cartes sax si mën ko nit ñi séddale ko résultat yi ak contentieux électoral ak conséquence bépp boo xam ne mën na ci judd nous tiendrons comme responsable monsieur le gouverneur de la région de Kaolack et monsieur le préfet du département. noo jàngatee violence bi parce que ñoom dañ doon jël seen carte ñu teg leen violence dàq leen police orchestré préfecture ba léegi génnuñu fa. waaw lu ñuy ñaawlu la parce que tey jii nii li Kaolack ay def loolu la leen yoon sant li leen yoon sant mooy ginnaaw bi nga xam ne ni bindu nañ. heure retrait yu jotee ñu dem mën a retirer seen carte seen carte électeur damay wax que ñoom seen wàllum bopp ñoom ñooy jox nit ñi ay rendez-vous parce que boo joxee sa récépissé ba seen nguur su ñu teg ci bunt bu dugg 30 secondes ñëw delloo la sa récépissé danaan la dans 3 jours tu reviens maanaam ñett fan après nga mën a ñëw pour mën a jot sa carte électeur ñett fan yi bu jeexee nit ñi dañu ñëwaat lan moo tax tey mu amoon rush boobu parce que nit ñi seen wàllu bopp xamoon nañ ne tey mooy dernier délai pour ñu mën a nga xam ne nag ñi ñi doon ko doon dañ ko doon laaj benn réponse rek la ci préfet am mooy tey jii nii oh les forces du désordre ñu ñëw violenté fa de pauvres citoyens violenté fa des journalistes yoo xam ne nii dañoo présenter seen carte presse pour wan leen que nous sommes des journalistes nous pour couvrir le ce qui de se passer au niveau de la préfecture ils ont été violentés te vidéo yi disponible la danañ ko mettre à la disposition de tout le monde may wax que ne loolu ça ne peut pas être une réponse juridique ça donc li nga xam ne nii moom lañ def tey kaw nag jéggi na dayo te violé na charte bi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu tënk mooy constitution bi may leen woowaat également ne suba élection yi ak bépp résultat boo ci jub ak bépp con ak bépp contentieux boo xam ne dina ci am ci ginnaaw ak lépp loo xam ne wàllum responsabilité la nañ xam ne kii di gouverneur ak kii di préfet ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko teg kaw lu ko ak kaw. mais suba moom élection yi dina incha allah danañ dem élection danañ dem élection mais nag am na tamit loo xam ne ni tey jii ñëpp xam nañ ne présage mooy lan ñi nga xam ne nii ñoom lañ dénk tey pour ñu organiser suñu élection ñoom ñoom ñi ko salfaañee droit électeur yi donc loolu c'est déjà un élément boo xam ne ñun ñu ngi ko ci ci kaw taal bi donc ñooñu ñun tey jii ñu am ci ñoom confiance ne danañ organiser élection ci anam yi nga xam ne moom lañ ko war a leneen li ci nekk nag ma ci interpeller bépp militant boo xam ne ni yaa ngi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi comme que ñun dem nañ ba xam que ne on peut pas avoir confiance au niveau de nos autorités nañ jël suñu ay responsabilité mooy ginnaaw bu ñu voté ba pare nañ leen taxaw ci centre de vote yi leen sécuriser suñu suñu suñu vote te ñu xam ne bu ñu ko defalul suñu bopp amul kenn koo xam ne nii mën nañu am yaakaar que ne di nga ko def donc tey jii nii mbéj nañu pesum kanam te suba incha allah nous on répondra sur le terrain danañ voté danañ nekk ci centre bi te danañ sécuriser suñu bopp ba nga xam ne nii lépp loo xam ne nii moom la Kaolack ay désigné nga xam ne nii moom la Kaolack ak Kaolack ay di désigné comme maire élection bi dana jaar yoon ñu xam kan lay doon bu soobee ñu présentation bi. waaw maa ngi fàttali ne man maay Mamadou Lamine Ndiaye nekkoon euh, directeur de campagne bi Yewwi Askan Wi au niveau de la commune de Kaolack. merci beaucoup.